bu waxtu wi jotee ñu dalal fii ab suñu uh, gan ngir am ak moom uh, sikkal moom ay waxtaan yu yaatu yoo xamante ni askan wi dinañ ci jëlee njëriñ waaye itam képp koo xamante ni yaa ngi scotché di seetaan leeral uh, TV tey nag duma ci sori maa ngi dalal kii di Babacar Sadikh Ngom Babacar Sadikh Ngom nag jiite cercle des cercle des euh, artisans waaw cercle des artisans la daal di jiite waaye itam artisans yi nga xamante ni ñoo féete euh, ci euh, parti bi di Pastef bokk itam ci élu des chambres de métier bu Ndakaaru monsieur Ngom maa ngi lay nuyu di la dalal sa plateau. maa ngi lay fay Amina di am mbégte bu baax a baax ci sa invitation donc di profité rek ci invitation bi di nuyu. waa mouvement national des artisans patriotes euh, rawatina suñu coordinateur Babacar Waror euh, donc tey nag ma teew fii comme ni nga ko waxee ak euh, presque ñetti casquette élu chambre de métier la en même temps ma jiite cercle des artisans professionnels mais aussi nekk porte-parole nationale les artisans patriotes ak chargé de l'organisation au niveau de MONAP mouvement national des artisans patriotes de Pastef mm-hmm. Euh, nga jiite cercle des artisans yu Sénégal alors yan difficulté ngeen di jànkonteel ci seen euh, secteur boobu di artisanat Sénégal. waaw secteur artisanat moom ku ko wax rek daanaka li nga ciy teg mooy jafe-jafe. Mhm. depuis indépendance ba léegi donc secteur bi ci ay jafe-jafe la nekk. amoon nañ yaakaar nag ci ay président yu fi jaar euh, waaye suñu yaakaar dafa mën mel naa ne dafa mujjee tas. déet waay commencé ko ci président bii fii bii fii nga xam ne mu ngi ci njeexitalu mandaam di président Macky Sall. Mhm. vraiment mooy président bi nga xam ne moom jàpp nañ ni moo gën a tas yaakaaru artisan yi parce que 2012 bi muy ñëw euh, am na fu mu fekkoon secteur l' artisanat am na fu ñu yaakaar noonu aussi fa la koy yóbbu mais malheureusement tel n' est pas donc mhm. euh, am nañ ci moom daal euh, déception boo xam ne vraiment déception bi ëpp na sax. bi ñu amoon ci président yi nga xam ne moom ñoo ko ñoo ñoo ko jiitu. mu donte ni mu ngi def ay jéego nag ci ci ci mbiru artisanat yi. waaw xam nga jéego moom buñ la dénkee am réew. Mm-hmm. réew euh, ay bànqaas yu baree baree baree bari boo jiitee réew donc yooyu yëpp c'est seen nga développé ko sa responsabilité la yow en tant que président de la république donc fi secteur l'artisanat bokk jàpp naa ne secteur yi gën a sooxe ci. secteurs yi ci Sénégal ci la ñu bokk ñun te tamit même ñi nekkul ay artisans reconnaître nañ ne liggéeykatu réew mi dañu leen a dellool gannaaw ci lu baree baree baree baree bari euh, loolu mën naa ci jël exemple parce que nee na mi ngi inauguré. Euh, cinquante deux hectares yoo xam ne daf ko war a jox ay mécaniciens. justement bi ñu bi ñu leen euh, jëlee ci euh, point yu xamante ni euh, yu ci mel ni yu Colobane jëlee leen fële ca zone de piste ancienne piste ak zone yu si bëri dañ leen sàqal fële ca jam ñaajo war leen faa yóbbu lëkk ñaari fan ci weeru mai bi ñu jëm alors naka ngeen gisee emplacement bi nga xamante ni jox nañ leen ko foofee ca diwaanu jam ñaajo projet bi début à la fin baaxul. ci laay ñëw léegi nii. Mhm. ndax nee naa la koo xam ne def na fi fukki at ak benn donc bientôt mu def fi fukki at ak ñaar musuma gis lenn loo xam ne mën nañ ci teg baaraam ñu ne lii Macky Sall moo ko defal artisan yi lu mu immigré c'est la première fois le 2 mai bii di ñëw ci lay door a def lu sotti ci loo xam ne artisan yi mën nañ ci teg seen loxo. 2012 ba tey. 2012 ba fii may wax ak yow. donc te loolu aussi dafa am ay njublang yu ci am yoo xam ne il faut ñu leeral ko artisan yi. Mhm. ndax bu ñu fàttee euh, il faut ñu ñëwaat ci historique gu 52 yooyu. Mhm. Euh, Macky Sall bi mu fi door a ñëw 2012 dafa fekkoon ñu diggoon artisan yi 100 euh, hectares ci Kër Massar. Mhm. ci régime mu Ablaye Wade. bi yàlla defee moom mu ñëw 2012 mu ne dafa bëgg mécaniciens yi nekk ci Ndakaaru mu jël leen yóbbu leen jam ñaajo dig leen foofu 52 hectares. mais malheureusement ñoom joxu leen 52 hectares 52 hectares yi ñuy yi ngay dégg ñu koy wax fan yii yëpp presse di ko bind du 52 hectares la jox mécaniciens yi trente hectares rek lañ leen fa joxagun 30 hectares yooyu juróom fukki atelier moo ci pareegun moom la ñu war a séddale mécaniciens yooyu mais loolu est-ce que ce que dina leen matale parce que euh, seen ñi ñu jëlee woon zone de euh, zone de captage rek toll nañ ci ay euh, cent vingt 427 yoo xamante ni ay ay patron de garage lañu. ci laa bëgg a ñëw am na ay genre de droit ndax boo xoolee ñi taxoon. Mhm. ñu gën leen a dig foofu bokk na ci mécaniciens yi nekkoon pompier. Mhm. bokk na ci mécaniciens yi nekkoon VDN. bokk na ci mécaniciens yi nekkoon ci endroit yu bari stade ba ci sax mécaniciens yi nga xam ne cible bi ñoom la. Mhm. muy nekk ci miiru. aéroport bi. Mhm. may dénk sama mbokk mécanicien yi président Macky Sall bu bëggee caxat caxatee suuf donc fi mu koy jaarale mooy dafa lay dig ne la dinaa la jox fukk waaye bu ñu demee ba ca cappaandaw ga doo jot fukk yooyu juróom wala ñett ngay jot loolu nag dinaa ci may ma ma développé ci tuuti. parce que maa ngi dénk suñu mbokk mécanicien yi. wallaay lancim ñi ngi leen di mobiliser ngeen di préparer pour teeru président Macky Sall ak Diamniadio mais na leen leer ne le 2 mais bu ñu ci tegee fukki fan ak juróom wala gën gaa bari un mois mboolem mécanicien boo xam ne yaa ngi woon fii ci région Dakar doon daan sa doole dinañ ñëw dëgër piir la te boo xoolee mécaniciens yi ni ñu toll ci région de Dakar nga ne da leen fii jëlee ñu doon xalaat ne di nga leen jox hangar boo xam ne vraiment ñoom ñëpp dinañ fa mën a dem. nga accompagner leen ba ñu mën a am moyen de transport parce que ku ci yor sa place fii yor fukki emprunté waa xanaa doone ma emprunté bu nekk boo xëyee suba da nga koy jox paasu teer bi mu dem jël teer bi dem jëm jëm ñaajo ñëwaat ban patron moo man loolu moom kay dafa bëgg a wax ne mi ngi bëgg a rey affaire apprentissage d'ailleurs mi ngi ci def ay projet ba def na ci projet yoo xam ne aboutirul mais lu mel nii preuve la ci ne dafa bëgg a rey affaire apprentissage parce que man su ma yoree wala suñu benn mbekkani mbokk mécanicien bu yor garage. Mm-hmm. am fa fukki apprenti yoo xam ne moo leen di jàngal métier di leen dundal nga ñëw ne ko fii jóge fi jox nañ leen jam ñaajo donc bu leen joxee jam ñaajo te joxuñu leen moyen de transport donc foofu clients yi mënuñu fa dem fii lañ leen tàmm xamee mm-hmm. loolu mooy yóbbu nga ko mu taxawaalu ji yóbbu nga ay apprenti am ñu taxawaalu ji beneen bi ci des juróom fukki euh, place su mécanicien garage yu pare garage yooyu il faut ñu wax ci mu leer ndax dañoo jël modèle bi ci réewu européen yi boo xoolee garage boobu daanaka comme nii rek lay toll ñu ne woon dañ koy jox ay chef d'atelier ñu dem ba ci biir ñu amaat beneen réunion gouvernance gouverneur ne par OPEA la ñu koy jox OPEA mooy organisation professionnelle waaw loolu bu fekkee dañ koy jox dañoo tànn téeméeri OPEA yoo xam ne dañ leen a war a jox juróom fukki euh, garaas téeméeri OPA noo leen di boolee juróom fukki gaaraas et puis nooy diggee nit ki de hectares dem ba war leen ko jox ne 30 hectares rek lañ leen di jox te ci trente hectares yi sax 50 hectares rek moo pare loolu ñu bëgg ko def événement bu rëy boo xam ne vraiment kenn xamul noo koy waxee parce que boo xoolee sembre de métier bi ñu dénk organisation bi fan yi yëpp ñu ngi ci ay mobilisation ay ñaata kaar la ñuy yóbbu donc mu mel ne ñoom mbuub mbaay bi ak président inauguré na fa lii bu jàllee mécaniciens yi nekkaat ci ay jafe-jafe ñoom loolu moo leen yitteel mais développer secteur bi yitteelu leen dimbale mécaniciens yi yitteelu leen. mais mécaniciens yi anam bi nga xamante ni moom la ñu nekkee ci ci mbedu Ndakaaru yi daanaka koñ boo dem wala ci kaw tali boo dem yaa ngi fa fekk garage mécanicien alors loolu bokkul ci liy taaral euh, mbedu Ndakaaru yi bokkul ci liy taaral euh, capital bi nga xamante ni moom la ñu nekk donc ñu yóbbu leen zone jam ñaajow donc foofu. je trouve que war nañ mën a nekk place boo xamante ni mécanicien yëpp war nañ faa mën a daje ku leen fa soxla daal di daal di jëm otoom daal dem euh, faji ko gënul. Amina très bonne question xam nga danga ne mécanicien yi ni ñu nekkee ci mbeddu euh, ndakaaru yi bon fu neex waaye nekk loolu am na ci loo xam ne dinaa ko nangu mais. Mhm. kan mooy responsable état mooy responsable. moo tax mu jël responsabilité am génnee li tax may la état mooy responsable bi ñun dañu ne fépp foo xam ne ñu ngi koy dagg. di mhm. ko lotisser pour def ko ay kër. ni nga foo war a génnee espace boo xam ne da nga naan fii terrain la pour football xale yi. Mhm. fii espace la pour sardin euh, fii jàkka lay war a di doon noonu tamit la loi bi prévoir fii liggéeykat yi fa la ñu war a nekk. Mhm. mais ñoom bu ñu jëlee suusu Ndakaar yëpp jaay ko. donc fi ñu waroon a def mécanisiens yi ñu jël ko jaay ko def ko ay kër mais mécaniciens yi dañuy obligé dem ci kër yu àggul yi ak nekk ci mbedd yi mhm. état rôle am mooy. daggaloon mécaniciens yi ay bërëb yoo xam ne foofu la leen di teg ñu nekk fa di liggéey donc loolu rôle état la. donc est-ce que rattrapé wu ñu le fait que ñu yóbbu leen jëm ñaajo dañoo rattrapé wu ci lu mel noonu. non état bi li mu bëgg loolu laa bëgg a dénoncer. Mhm. dafa bëgg a jël arti euh, dafa bëgg a jël mécaniciens yi nekk Dakar yépp gurgur leen yóbbu leen jëm ñaajo su ko defee li ñu doon tuddee ay garage témoin fii ci dakaar mhm. maanaam ay garage moderne mu mhm. jël ko jox ko chinois yi. loolu mooy pexeem te loolu. il faut suñu mbokk mécaniciens yi yeewu ci maanaam dañ leen a bëgg a gurgur jëlee leen fii ci dakaar pour miiru miiru euh, aéroport bi ñu nekk ñu continuer dagg ko jaay suuf si feneen fi nga xam ne aussi ñi ngi fa fu mel ni géejawaay am nañ fa 6 hectares mm-hmm. mais ba fi may waxee yow 6 hectares yi ñi ngi ci problème mu préfet sax wax ne fii ngeen am 6 hectares te décret bi moo wax ne 6 hectares yi pour artisans yi la Macky Sall moo ñëw géejawaay mm-hmm. def fa conseil de ministre décentralisé. muy wax ñuy dégg jàkkaarloog moom mu ne ñun ñoo defoon demande bi waa Géejawaay mais ci demande bi artisan yi la ak imam yi nga xam ne dañu ne woon dañoo bëgg benn institut islamique ak ay armeel mhm. yoo xam ne fii ci Géejawaay lañ ko bëgg parce que Géejawaay amul armeel Pikine la ñuy suule mhm. président nangul leen ko ñu ne artisan yi aussi dañoo bëgg foo xam ne fa la ñuy euh, bërëbu liggéeyukaay donc ñaari demande yooyu moo tax président Macky Sall déclenché bande de flao bu géejawaay bi mais loola wax dëgg yàlla waa géejawaay réccu nañ sax li ko Macky Sall déclenché liggéey boobu fan la toll. liggéey bi gis nañ ku mel ne Youssou Ndour dagg nañ ci jox ko gis nañ waa CADAS dagg nañ ci jox leen waa impôt et domaine moom jàpp naa ne ñoom ñoom moom Sénégal parce que ñoom ci seen bopp euh, fépp fu suuf am rek ñoom dafa mel ne. Euh, balaa kenn am ñoom dañoo war a am ba pare parce que bu ñu demee ba ay syndicats yu nekk ci biir impôts et domaines ñu mën a jot euh, ay ay bailleurs ku mel ne Youssou nduur mën a jot ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi dëkk Almadi ñii ñi ngi dëkk ci yeneen waa Géejawaay yi moom seen suuf dëkk fa. Mhm. kenn mun a guccee jot benn mètre. mais loolu problème am na problème am na donc ñi ngi wax woowaat Macky Sall mi ñëwoon Géejawaay diggee. Mhm. ne artisans yi dinaa leen jox six hectares. yoo xam ne da ngeen fa def ay centre de formation yu mag da ngeen fa mën a am benn foyer des artisans bu mag di ngeen fa mën a am ay centre de formation ci yeneen filière de euh, ci yeneen filière ci yeneen métier donc Macky Sall moomu la ñuy rappelé waat ne ko suuf soosu sa nit ñi ñu ngi koy jël di ko saax-saaxee di ko jox ay yaama neex waaye ñoo dëkk waaye moom jariñoo ko jariñoo ko alors euh, ñu fas yéene leen yóbbu wax ko sànq ca diwaanu jam ñaajo niki ñaari fan ci weeru mai bi ñu jëm alors naka lan ngeen di xaar ci état bu Sénégal une fois que mu déplacé leen au niveau de jam ñaajo déplacement bi dafa bari ay mécaniciens ci Dakar yoo xam ne ànduñu ci mhm. am ay mécaniciens yoo xam ne ñi ngi tàccu ak a fecc mais xamuñu conséquence bi leen ciy dal. lan moo tax ànduñu ci parce que tamit mënuñu leen a bàyyi ñuy encombrer eh, capitale bu Sénégal comme ça tamit fu nekk ñu daal di fay euh, samp ab euh, atelier boo xamante ni boo demee sax euh, lu nekk si norme oto yu yàqu yi tey mara day taali nit day feebar sax bëgg a génn ab oto bu mécanicien dal di koy baare si bunt bi du mën a dem du mën a dikk donc une fois ñu yóbbu leen jam ñaajo yaakaar naa dina mën a désencombrer li nga xamante ni euh, moom moo di capital bi un mais aussi di ngeen fa mën a nekk fu mu gën a yaatu ngeen mën a nekk liggéey def seen liggéey quand même. waaw ma ne. Mhm. miiru aéroport bii ñuy dagg di ko jaay ñeneen. pourquoi pas ñu jox ko ci mécaniciens yi seen wàll. mais ci biir Dakar a nekk ba tey. ci biir mën nañ ko def ay garage moderne dinaa la xamal benn affaire mécanicien yi. Mhm. mën na nekk fépp boo demee ci réew yu développé yi dañuy jël lu dañuy jël benn espace. Mhm. aménager ko dénk ko ay mécaniciens fermé donc yow mën nga dawal sa oto dugg ba ca biir. ñu defaral la sa oto nga génn te mbedd mi du taq peinture loolu état mën na ko def fii Dakar. garage moderne yooyu mu bëgg jël jox chinois yi mën na ko defal suñu mbokk mécanicien yi Dakaru desati na espace bu maa ngi la wax ne la géejawaay ñun géejawaay fële kay wax dëgg yàlla am nañ fa ay espace dañuy door a suuf si mhm. mais suuf soosu ñuy door a déclencher nee naa la xalaatuñ ci liggéeykat yi xalaatuñ ci artisans yi dañoo bëgg séddale ko séddale ko ba mu jeex ñu door ne ah yéen liggéeykat yi kat ñëw leen ngeen dem ja jam jam ñaajo mhm. mais loolu benn liggéeykat du ko nangu donc mécanicien yi ngay wax nii bu fekkonte ne jam ñaajo tey réserver nañ leen fa cent ectare defar ko ba mu doyo ba mu ba mu ba mu ba mu mucc ayib ne leen yéen ñi nekk dakaar yëpp ñëw leen ngeen dem jam ñaajo ku ci nekk chef de garage bu nekk dinañ la jox moyen de transport oto booy mën a yab say emprunté bu boobaa ñoom du ñu am jafe-jafe bii ñu am mais bu fekkee da nga ne téeméeri OPA laay sélectionné am na ñoo xam ne ay OPA la ñu yor mais yoruñu garage léegi kooku boo ko joxee mu bénéficié wu ëllëg mu jaay ko wala mu luyee ko keneen mécanicien bi nga xam ne moom moo yor fii gaaraasam yor ay emprunté am di leen liggéey nga ñëw dëgër piir ko donc moom yóbbu woo ko jam ñaajo xañ nga ko atelier bi mu nekk mais kooku xanaa moom du Sénégal. non mais ñoom aussi il faut que ñuy ñuy organiser wu organiser secteur bi de de sorte que euh, bu ñu amee genre yu euh, offre yu mel nii ñoom ñu mën si bénéficier wu. xam nga organisation weesuwut ñu ne yéen dajaloo leen def benn association. Hmm. tey ci secteur cent vingt corps de métiers yi nekk ci secteur l' artisanat amul benn boo ciy dem te amuñu organisation professionnelle di ko doxal mhm. mais rôle bi état war a def loolu la defut yow dégg nga fi cent cinquante mille yu ñu doon jox ay artisans ci trente mille euh, milliards mhm. ñu wàññi ko mu nekk vingt cinq milliards ñu joxe dix milliards yi ba fii may wax ak yow jotaguñ fukki milliards yaak juróom yaa ngi dégg ay dig yu ñu leen digoon cent hectares da nga koy dégg ci seen i responsable de mhm. am na mais cent hectares yi boo demee jam ñaajoo dañ ko def ay cuqet cinquante deux hectares moo nekk fi Macky Sall war a euh, inauguré euh, le 2 mai. Mhm. mais bul fàtte ne am na ñu dëkk VDN ñoo xam ne joxoon nañ leen séendu te ñu bari ci ñu ñu joxoon foofu ci turu mécaniciens yi te sax am na ci ñoo xam ne duñu ay mécanisiens dañoo mujjee jaay seen suuf. lan moo war lan mooy waral loolu en fait parce que ñoom bu ñu bu ñu déclaré woo ñu ñu nekk ci organisation donc boo xamante ni déplacé nañ leen bu ñuy jox ñeneen waruñoo ñoo toog di croiser les bras ñu ñuy ñuy jox ñeneen di leen bàyyi. jërëjëf ci laaj bi li koy waral mooy xam nga secteur l'artisanat dafa am état bi nu mu ko jàppee noo xam ne daanaka jafe-jafe bi leen di am dama naan du gaaw a saafaraw mm-hmm. ndax yow mii tey mën nga dugg ci secteur bi donc filtre ñu wane na ne ab artisan nga bu artisan yi di def activité nga nekk fa laaj xaalisu mobilisation gën faa rëy làmmiñ bu ñuy joxee yow la ñuy jox. mais est-ce que du ñoo war a am seen fulla nag jéem a xool segg seen milieu bi tamit. non xam nga artisan mooy secteur boo xam ne dafa yaatu parce que secteur bi nee naa la bu boolee téeméeri corps de métier ak ñaar fukk ak benn kooku boo ko bëggee organiser yow état. Mhm. danga koy def par filière. waaye nga ne téeméeri corps de métier ak ñaar fukk ak benn moo am. mais ñetti section ngeen production service ak art bàyyi noonu donc loolu du neex a organiser. Mhm. tey décret bii nga xam ne moom moo tënk artisan yi Senghor moo ko defoon. mi mhm. moo 1977 la ñu décrété woon chambre de métier yi chambre consulaire yi Macky Sall bu fekkonte ne liggéeyal secteur l' artisanat ñor na ko tey boo demee sumbee Soumbédioune bii di dina am beneen xar kanam waaye Soumbédioune bi fi Senghor bàyyi woon ak Abdou Diouf Soumbédioune boobu moo fa nekk wala sax bii fa nekk moo gën a yées. donc munoo ne damay taxawal damay jàppale ñi am métier bokk ci secteur bi mhm. te bërëb ya ñuy nekk baaxut conditions ya ñuy nekk baaxut loi ya leen di nekk ya leen tënk bari na ci yoo xam ne laaj na ay mu nga lank ne doo ko réformer mhm. boo demoon tey chambre de métier de dakaar mhm. buñ ne laa fii chambre consulaire la da ngay téye sa gémmiñ bu njëkk tubaab yi bu ñu naan ñëw fii di visiter xam nga lan moo tax daawuñu sawar sax dem ba sali Mhm. parce que boo demee Soumbédioune village artisanal rek booba tunnel bi jaaragu fa. Mhm. da ngay mën a am li nga bëgg yëpp. mais actuellement tubaab yi ak yeneen i bailleurs yoo xam ne euh, dañuy ñëw bëgg a visiter tourisme Sénégal wala artisanat Sénégal yow bu fekkee yaa fii fi indi da leen di ruuse yóbbu Soumbédioune parce que boo xoolee na mu na mu na mu ni mu mel rek doo fa bëgg a am gan boo respecté di ko fa yóbbu benn. Mhm. ñaareel ba ci des ndoxu foos bi bu canal bi. jaxasoo naag ndoxu bi bi nekk bi dend ak Soumbédioune bi ba boo fa duggee yow beneen odeur moo lay xeeñ donc tey chambre de métier budget am bu ma ne la euh, cent dix-sept millions la ci chambre consulaire boo xam ne yow yaa war a couvrir région Dakar yépp nga xam ne communes yi sax ñii ngi ci ay budget deux milliards ñii ngi ci un milliard et quelque yow nga yor chambre consulaire boo xam ne région bi cinq départements yi fi nekk yépp yaa ko war a couvrir art fu artisan nekk. Mhm. ñu ne la budget cent dix sept million ngay am mais loolu ay caaxaan la ay naxe la. Mm. donc Macky Sall ñu ngi koy ñaan euh, jàppoon nañ ne sax ci fin mandaam bi dinañ dina xaw a euh, def tuuti lu artisan yi amaat espoir mais nii mu koy doxalee nii moom vraiment jàpp naa ne day gën a rey secteur bi te day gën a jaxase artisan yi. Mhm. parce que lii ma lay wax nii bari na ci ay mécaniciens yoo xam ne ñoom laa ko waxal. Mhm. tey le deux bu ñu inauguré ba pare bañ ne OPA yii la ñu tànn. di nga ci gis nee naa la ay mécaniciens yoo xam ne turu mécanicien la ñu am waaye amuñu garage amuñu clé réparé ñu benn oto te dinañ am nga gis ñoo xam ne ñi ngi fii lan mooy waral loolu parce que euh, bu fekkee di ay OPA lañ jël ñoo xamante ni leer na leen dañ ko waroon teg ci euh, base yoo xamante ni dañ leen fekk seen garage jëlee leen fa donc ku nekk amoon nga koo dendal boo ko gisee lu mel noonu nga nga dénoncé ko nga jaar fu mu nga war a jaar nga xamante ni ku ci bokkul du ci mën a bénéficier wu xam nga boo gisee ci suñu commencement waxtaan dama ne la projet bi bi mu commencé ba fii ñu suñu jonne yàlla tey baaxul mhm. xam nga man élu de métier président chambre de métier bi mi ngi may dégg membre éli ñu ngi may dégg mm-hmm. tey du kenn ci ñoom ku ma mën a wax ne site bii ñu war a euh, inauguré le 2 chambre de métier moo koy couvrir wala direction de l'artisanat wala fan lañ ko yóbbu te jàpp naa ne moo melu chambre de métier la waroon doon du kenn ku ma mën a wax ne état daf leen koy may garage bi wala daf leen koy louer donc amagul xamuñ ñoom artisan yi ñu ko war a jox sax xamuñu ci projet bi dara. ñaar ñetti nit mais loolu du yéen ñi ñu jiital yéen yéen yéen leen waroon a dox ci ci jéego yu tool noonu pour mën a am information yi ngeen ci war a am. mais ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ñooy acteurs yi ñu jiital ñu. bu mm-hmm. fekkee ñun ñu duñ ñu impliqué duñ ñu woo ci dara duñ ñu associé ci dara mais noonu rek lay demee parce que li ñuy def bu leerut mënuñu ñun ay élus lañ. Mm-hmm. dañu war a càmbar lépp luy alalu artisanat te nekk ci région de Dakar donc ñoom xam nañ ko bu baax a baax dañu war a impliqué ci dossier bi bu baax a baax a baax a baax surtout ci projet bi mhm. mais xam nañ ne comme ay njublang la ñuy def suñu ñu ci boolee ñun dinañ feeñal seen njublang googu moo tax daanaka du kenn koo xam ne tey man ngaa taxaw ne état bi nii lay joxe joxee euh, nii lay joxee euh, garage yi mhm. diw ak diw ak diw la ñu koy jox ñii ñoo ko gën a yeyoo ñii la ñuy xaar prochaine mhm. beneen bi ci des jaakaar jàpp naa ne Amina gàcce la ci résime boo xam ne deux mille vingt quatre bi ngay def fukki at ak ñaar yaa ngi door a inauguré lu ñu mën a teg baaraam ci secteur l' artisanat ci secteur boo xam ne cent vingt et un corps de métier la waaye yeneen corps de métier yi ana seen wàll. instant bi nii euh, donc li ñuy inauguré nii c' est juste pour. Euh, ñi nga xamante ne ñooy mécaniciens. te cinquante deux hectares yi ñuy wax partout neenaa naa leen joxuñu ko mécaniciens yi trente hectares lañ leen ci jox jël beneen dix hectares yi. c'est euh, pour def ko fourrière national mhm. beneen di hectares yi ñu jël ko ne foofu la ñuy def fi nga xam ne fi la ñu war a yàqee kase oto yeeg yu mel noonu. Mhm. donc kon ñoom cinquante deux hectares yi ñu leen jëloon bi ñu leen di door a jógee jëlee pompier dig leen ko bañ nangoo lañ leen joxoon Kër Massar dig leen ko bi ñu euh, dëgër piré waa waa waa VDN ak ñeneen ñu mel ne ñoom seen i mbokk cinquante deux hectares yooyu mujjee na ci trente hectares ci loo xam ne projet boo xam ne def na fukki yaa ngi ko wax presque depuis 2014. Mhm. loolu franchement yaakaar naa du du du du taxaw secteur bi du jàppale secteur l'artisanat mais gën koo suuxal la donc may wax encore une fois suñu mbokk mécaniciens yi ñu xool bu baax a baax tey au niveau de sembre de métier bi ñuy jox organisation yi organisation bés ba bari na ci ñoo xam ne ñoom xaalisu mobilisation bee leen ñor ña ngay toog di wax nangami kaar laa war a indi am na ci ñoo xam ne sax du ñu ay mécaniciens xamuñu ci wàllu mécanicien dara tey boo fa demoon. le deux ña nga fay fekk ci ay daanaka mécaniciens yi ñoo ciy gën a néew façon politique boobu ñuy def ci secteur l' artisanat la ñu war a arrêté. da nga jàpp ni dañoo dañoo bëgg a politiser li nga xamante ni moom moo di moo di secteur artisanat bi. Euh, pardon. ma ne da nga jàpp dañ ko bëgg a politiquer le fait que ñu mobiliser ay car bëgg leen euh, dem pour teeru ji le président. exactement parce que boo xoolee euh, fan yi yëpp ci organisation boobu la ñu nekk. naka la ñuy def ba wan président Macky Sall artisan yëpp ànd nañoo ak yow naka la ñuy def ba mobiliser ay nit pour Macky Sall xam ne artisan yi ànd nañu ak moom loolu ay jaaxaan la demoon vers artisan yi. Mm-hmm. artisan yi xam ne li nga leen defal nii seen yëf la donc ñoom ñu mobiliser seen bopp ñëw wax ak yow yaakaar naa moo ëppoon ay njariñ ngay jël ay nit yoo xam ne ñoom politique rek la ñu nekkee ci secteur bi surtout gur-gur. artisans yi ni leen da ngeen di nekk ay membre APR par force ñoom loolu mooy seen rôle ci secteur l' nga jël leen jox leen ay moyens ñu war a mobiliser ñenn ci nit ñi am na ci ñoo xam ne sax duñ doon ay artisans dañuy mobiliser rek. Mm-hmm. ñoom xaalisu mobilisation bi moo leen ñor pour dem nax président ne ko artisan yow lañ àndal. mais na président xam ne boppam lay nax mais du artisan yii yu 2023 yii ñoom ñooy taxaw di votelaat laat Macky Sall. Mm-hmm. wala ñuy taxaw di laajaat Macky Euh, lu jëm ci secteur ñun dañu pare ci moom ñun li ñu koy ñaanal mooy. en gros daal comme euh, artisans yi donc la moitié des artisans yi ñu fas yéene yóbbu fële ca euh, jam ñaajo ñoom d'accorduñu le fait que ñu leen di mobiliser ñoom ñëpp foofu ci ci ci trente hectares yoo xamante ni. moom lañ leen jagleel au lieu de 50 hectares ñuy fàttali rek mbokk téléspectateurs yi yéen a ngi ci seen émission leeral xibaar ñu dalal fii suñu gan kii di Babacar Sadikh Ngom jiite euh, cercle des artisans du Sénégal waaye itam mu bokk ci artisans yi nga xamante ni ñoo fari euh, ci euh, parti bii di Pastef ñu dikk rek ci diwaan boobu ci wàllu politique ah sëñ bi Ngom boobu la doon laaj tey jii naka nga gisee réalité socio-économique bi fii ci Sénégal dundin bi actualité bi naka nga ko gisee. waaw fi mu toll nii nag euh, xaw na li ñu naan changement de climat am na fi mu toll nii moom man Sénégal gi ma xamoon. Mhm. ak Sénégal gi ñu nekk nii xaw na wuutee torop. lan différence bi. donc képp koo xam ne am nga xel jamono yi tey xalaat war nga tiit li tax loolu mooy dañu am njiitu réew boo xam ne. donc fukki at ak ñaar wala mhm. fukki at ak benn mu doon xëccu réew mi donc am na lu mu doon wax ci wàllu ay mandat am na lu mu doon wax ci yoreenu réew mi euh, surtout koom-koom bi ak alal ji donc suñu demee ba mu ba ñu jox ko benn mandat joxaat ko beneen mandat mu nekk ci dernier mandat ñu gis ne moom mi ngi briguer beneen mandat ba ñu bokk ci ñoom sax di ko wutal tour naan deuxième quinquennat donc loolu vraiment euh, képp ku am xel xam population Sénégal xam sénégalais donc da nga tiit parce que xam nañ ne loolu duñ ko nangu. Mhm. même bu fekkee dañ ñuy rey ñun ñëpp ba ñu dee mu door a nekk candidat wala mu door a dem élection. dinañ ko def mais incha allahu rabbi dinañ ko xeex jusqu'à nu dernier suuf d' accord léegi euh, ci yow yaa ngi porté ñaari casquette yaa ngi euh, bokk ci élu chambre de métier bokk itam euh, ci euh, parti euh, Pastef naka ngay allier ñaari ñaari yo ñaari casquette yooyu noonu est-ce que sa sa sa militantisme du impacte ci sa sa liggéey ci wàllu sa taxawaay ci wàllu artisan yi waa xam nga élu sambre de métier bu ñu waxee élu ñoom ñooy député l'artisanat maanaam ñoom la ñu fal pour ñu teewal artisan yi ci membre assemblée bu chambre de métier donc loolu bokkul ak sama ambition politique sama ambition politique donc programme la boo xam ne day jëm ci secteur bi ma bokk ma gis ne lii jàpp naa ne su ma ci jàppee ëllëg secteur bi ma nekk di ko xeexal dinañ am ndam donc programme boobu laa liir ci président Ousmane Sonko ci benn livre boo xam ne def na ko muy solution pour Afrique mais solution pour Sénégal ma mhm. dem ci aspect l'artisanat bi nga xam ne man moo ma concerné vraiment ma gis mu wax ci loo xam ne gëm naa ne loolu dong mooy li mën a defar secteur bi donc euh, loolu doyut ma gisaat mu yëkkati poste boo xam ne hmm. mooy commissaire scientifique chargé de l'artisanat ci biir bureau politique am dénk ko ab artisan hmm. ñu ñu jàpp ñu yàgg xeex ne ñaare dafa am ay intellectuels yoo xam ne dañ leen di jël ñaare di leen dénk suñu secteur bi te duñ ci xam lu bari donc président Ousmane Sonko bu jëlee ab artisan ne ko yow yaa may xelal ci wàllu artisan def ko commissaire scientifique chargé de l'artisanat donc loolu aussi tamit bokk na ci li ñu gëm ne kii li mu wax gëm nañ ne bu ñu ko falee loolu dina ko def parce que déjà def na benn acte bu ñuru loolu mhm. may saluer euh, ma koy nuyu muy suñu coordinateur Babacar Waror de passage xam naa ne jombul mi ñuy déglu mhm. donc moom aussi tamit donc vraiment mu yaatal parce que bi ko président Ousmane Sonko nommé loolu ci bureau ci cabinet politique am euh, toogut dafa jóg wër Sénégal yëpp parce que moom it élu chambre de métier la doon CESE aussi tamit union nationale chambre de métier du Sénégal. Mhm. donc xool artisan yi nga xam ne ñoom développement moo leen ñor vraiment secteur bee leen ñor mu woo leen toog ak ñoom waxtaan donc xamal leen ne su sañoon donc vraiment biir Pastef Euh, li nga xam ne bëgg nañ ko faa taxawal parce que taxawal nañ fa mouvement des cadres taxawal nañ fa mouvement doomu daara taxawal fa mouvement des femmes taxawal fa noonu lañ fa war a taxawale mouvement boo xam ne artisans yi ñoo ñoo koy ŋànk su ko defee lépp loo xam ne programme la bu jëm ci président Ousmane Sonko bu mu waree yor réew mi incha allah 2024 mu bañ ko xalaat moom kese mais xalaat boobu mu partagé ko ak ñun ñun artisans yi ñu xamal ne ko ne fii mooy metti lii mooy solution yi su ko defee buy tëgg programme programme boobu dina méngoo parce que nit ki boo koy promouvoir wala nga koy defal dara donc danga koy déglu laaj ko. Mhm. loolu aussi moo tax euh, maa ngi profité sax di gërëm la secretaire général Bassirou Diomaye fay di ko ñaanal fi mu nekk yàlla na ko fa suñu borom génnee di wax président Macky Sall na ko génnee. ak mhm. nu mu gën a gaawee. parce deful dara. Mhm. donc moom vraiment ci euh, ñuy yoroon projet boobu la. ba ni yàlla defee la 30 bi jàll la ñu waroon def lancement officiel bi parce que def nañ suñu euh, assemblée euh, générale boo xam ne moom fal nañ suñu bureau au niveau national mm-hmm. donc ak mm, ñi nga xam ne ñoom ñoo yor coordination yi ci gox yu fasantikoo yi mm-hmm. ñi ngi ciy liggéey donc mais le 30 bi ñu waroon def lancement officiel bi yàlla dafa def parti bi am ci ay jafe-jafe donc ñu arrêté ci ki nga xam ne moom mooy El Malick déggoon nga arrestation boobu noonu. voilà justement justement ci ci ci ci arrestation yi naka ban lecture nga am ci arrestation yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko euh, jëmale ko ci euh, ñi nga xamante ni ay partisans Pastef lañ. art euh, arrestation yi bëri na ku jógee ci El Malick ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ba ci Bassirou Faye mi nga bi nga mi nga mujjee tudd léegi Bassirou Diomaye bon li ma ciy wax mooy ñun artisans yi rek dañ cee am naqar bu rëy rëy rëy mhm. parce que xam nga programmer sa benn mbir ba jàpp date ba war a def ñi nga ki nga xam ne moom moo nekkoon yor projet bi di président Bassirou Diomaye Faye nga ñëw fekk ko ci bërëbu liggéeyukaayam ne ko coppet te defu la dara donc di jéem a gàllankoor. Euh, liggéey loolu vraiment mais li ñu koy toppee moom moo di euh, dafa dafa def outrage à magistrat ci poste bi mu defoon ci ci page Facebook am. non loolu la ñu wax rek gis nga loolu noonu man partagé naa ko mille pa euh, patriotes partagé nañu. donc kon nañu jël si ñun ñi tamit dañoo war a jox war ma ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñoom ñooy àttekat yi tamit. xam nga àttekat. bu mm-hmm. fekkente ne nekkul ci dëgg jëratul jox war ma. atekat mais ñoom posture bi ñu leen bi ñu am war nañ leen mën a jox euh, ma post noo xam nga atekat euh, Amina ay nit rek lañ gis nga yow ni nga nekkee journaliste keneen nekk artisan kii nii la nekk juriste keneen nekk leneen keneen nekk médecin keneen nekk leneen ñun ñëpp dañu war a respectante suñu réew mi dañ ko tabax ñu def benn constitution boo xam ne génnul la génnuma génnul Amadou Sall doomu Macky Sall génnul président Macky Sall ñun sénégalais yi ñoo bokk dëkk Sénégal boo ko juddoo Sénégal kenn gënu fi kenn kenn ëppale wu fi kenn donc nekk juge warul tax nga ne man rek maa xam li constitution bi wax man rek maa mën a interpreté constitution man rek maa am sañ-sañ ci constitution donc doo juumee da ngay nangu même Sénégal lambda bi nga xam ne du juriste du mais sénégalais la ne la lii da ngaa juum da nga koy nangu mais waroo ko ci jàpp di ko tëj yow ci sa bopp Amina mm-hmm. xam nga ne Sénégal fii mu toll tey ci justice man de dinaa la wax benn affaire ñaar yi bokk na ci li tax ma milité wu ci Pastef ñaar yi mhm. bu ma dégloo président Ousmane Sonko di wax ci injustice di ko démontrer ak muy dugg di wax ci wàllu fiscalité donc vraiment sama xol bi ni muy seddee maara day taali parce que ñaar yooyu moo moo moo Sénégal pour mu dem li ëpp euh, solo ci développement wu Sénégal tey moo doon fexe ba promouvoir suñu petite et moyenne entreprise yi mm-hmm. ak ñun ni ñuy woowee ay artisans ñu fexe ba jàppale ñu su ko defee ñuy man di dagg impôt Sénégal bu boobaa du jar muy lebi benn xaalis mm-hmm. président Ousmane Sonko daf ci am xam-xam boo xam ne buy développé même ñi nekkul ñi ñi ñi jaarul ENAM xamuñu dara ci fiscalité sax dañuy xam ne kii li muy wax dëgg gu wér kéng la beneen bi ci des buy wax ci wàll justice da xam ne kii lu muy wax nii kenn mënu ko dindi parce que Sénégal ku am ndey ak ku ma amul ndey weesuwul yow boo faree ak Macky Sall soo waxee lu gën a garaaw li Bassirou Diomaye fay wax ñu bàyyi la parce que da nga far ak Macky Sall soo waxee ne Macky Sall baaxut rafetul donc euh, ñu ñëw jël si la tëj la boobu Sénégal vraiment boo bëggee jël justice bi bëgg ko jox benn dayoo te justice bi mooy jàpp mooy woote vraiment man dina ma jaaxal man justice bi nga xam ne moom laay jox gëdd justice bi nga xam ne vraiment dama koy fonk mooy justice bi nga xam ne su ma amee ak sama moroomu citoyen jafe-jafe su ma ñëwee daf may àtte ci ni ko constitution bi waxee daf may àtte ci yoon waaye duma ma àtte ci par parloo. naka nga gisee àtte bi ñu àtte Ousmane Sonko ak Mame Mbaye waa xam nga mambay ñaa ci boppam laay wax Mame ñaa jàpp naa ne bu fekkonte ne mi ngi suivre actualité wala mi ngi suivre mi déglu sénégalais yi mi ngi topp sénégalais yi comme ni ko xale yi waxee euh, war na arrière ci lii muy def xam nga lu tax. parce que ah, nit ñëpp xam nañ ne nee nañ dañ ko diffamé mu dem ci yoon. waaw mais xam nga yow yow bu fekkee damaa ñëw nga ne ma danga ma diffamé danga ma diffamé ñu dem ci yoon yoon jox la dëgg ne la amande naa ki nga amal affaire euh, deux cent millions. Mhm. donc moom dinaa ko tëj sursis deux mois yu mu dul tëdd. Mhm. mais jeexul. wee ah, problème am na sañ-sañ ne liñ ko liñ ko àtte bi ko bi ko yoon teg neexu ko mu daal loolu nag moo leeral ci sénégalais yi nga xam ne xamuñu droit ni Ousmane Sonko amee droit aussi moom tamit xool xam ne liñ ko mm. àtte neexu ko mu mm. daal di introduire appel donc may ñaa war nga ko mën a nangu appel bi mu bi mu bi mu donc loolu loolu loolu loolu mu def noonu mm-hmm. yàlla xam ne ne dafa ubbi xelu sénégalais yu bari loolu mooy Ousmane Sonko la bëgg a xañ candidature am 2024 mais est-ce mën na ko xañ parce que moom moom dafa déposer plainte juste pour ñu ñu ñu ñu ñu ñu àtte leen donc àttekat bi moom mooy décider à que naka ba xam dina maintenir. Euh, li nga xamante lan moo tax àttekat bi décider li mu décider neexu ko mu bëgg leneen donc ça di loolu mooy mais ah, ah, mais àttekat bi moom tamit dafa dafa dafa jox ko euh, Ousmane Sonko daf ko def coupable parce que lu tax mu dem ba amande ko c'est parce que da ko ni ñu koy toppee moom moo ko def. gis nga dossier boobu vraiment boo demoon laaj. donga daara yi ci mbedd yi sax li ñu lay njëkk tontu mooy Mame Mbaye Niang nekkul ci dëgg ci ay caaxaan lay nekk te képp ku ko bëgg na teg projet bii ci suuf parce que Sénégal du tey ak suba Sénégal gannaaw suba am na Sénégal gannaawaati suba am na. Mhm. te lépp lu waaye rend nag ci sa loxo bi lay nàcc. Mame ñaa Niang mënul doon ànd ak nit ñi di xeex troisième mandat ci Ablaye Wade di yeew boppam ci giri ci buntu pale yàlla def 2012 ñu jël ko fal ko moom ak kam doon àndal. Mhm. mu falu ba pare toog ne keneen dootu falu man maay def samay pexe pour kii dootu falu président Macky Sall mi nga xam ne moom mooy njiitu réew mi gis ko di ko ci encouragé ñun sénégalais yi nga xam ne loolu daf ko bëgg a pour gàllankoor Ousmane Sonko ñuy topp di di noppi pour lan. Mhm. nee naa la candidature Ousmane Sonko du ay Pastef du ay Ousmane Sonko du kenn ñun sénégalais yi la particulièrement les artisans sénégalais. Mhm. mais liggéeykatu sénégalais ñun euh, ñoo porté. candidature Ousmane Sonko. amul benn mbindeef wala kenn ku koy teree nekk candidat ñun ñu nekk ci réew mi. <laughs> vu que instant bi mu ngi ci euh, loxo yi yoon mën nañ ko waxee noonu ndax ñaari procédure mu ngi koy xaar bu appel procès en appel bu euh, Mame Mbaye Niang waaye itam ñuy xaarandi procès bi ko lëkkale ak ki nga xamante ni moom moo di aji Sarr est-ce que am nga yaakaar ci euh, Ousmane Sonko nekk candidat en vingt vu que yoon mu ngi am ñaari mbir yu mu koy toppee. dama lay ree sax balaa ma laa tontu. <laughs> donc man man maa ngi ñaanal président Ousmane Sonko yal na ko yàlla gën a dolli jàmm. Ah procès yi nga xam ne lancé na ko au niveau de Ziguinchor bi nga xam ne fal nañ ko. Mhm. yal na ko ci suñu borom jàppale ba ndam boo xam ne yaakaar na ko ci rek yàlla may ko ndam bu gën a kawe bopp. beneen bi ci des mu gën a concentré wu ci liggéey boobu li ci des mu bàyyi kook ñun Ousmane def na li mu war a def lépp 2007 17 2016. mille 2017 Ousmane bu daan door a wootee di wax ñetti nit juróomi nit a koy déglu benn micro fa doon nekk tey Ousmane bu wootee yéen journaliste yi ku ci nekk da ngay bëgg sa mikoro nekk ci kaw loolu ak sant yàlla la donc kon moom def na li mu war a def prouvé na ci gàttal donc li ci des ñun la koy bàyyee ñun sénégalais yi mhm. particulièrement jeunesse bu Sénégal ñun ñooy porté candidature Ousmane Sonko comme ni mu la ko waxee léegi ñun ñooy yóbbu Ousmane Sonko palais te suñu bakkan bii lañ ci teg Macky Sall laa la wax bu fekkente ne briguer beneen mandat daf ko jaral ñun benn mag nee na lépp loo xam ne. mais jaral na addu kalpe bi mu ñëw jël kalpe bi yow mi moom kalpe bi bu la ko jaralee kalpe bi du dem foofu lañ toll ak président Macky Sall wallaahi billaahi wallaahi mosuma waat ci émission. Mhm. lépp loo xam ne président Macky Sall jaral na ko ko jaral na ko ko pour nekk candidat xañ ñeneen ñi candidat. lu ko raw jaral nañu ko pour moom mu dem yoonam jox ñu suñu réew ñeneen ñu gouverner ko te président Ousmane Sonko lay doon incha allah. Mhm. est-ce que nangu aussi tamit ndogal bi nga xamante ni buñ ne candidature yi ki koy valider kenn la muy conseil constitutionnel buñ ca yeggee ak jàmm Macky Sall déjà waxagul lu leer ci euh, candidature am dina ko def wala du ko def nee na buñ ca yeggee lañ koy def donc lan moo lan moo waral coow li kon coow li lan moo ko lan moo ko waral parce que moom ndeyu mbili gi nee na. buñ ca yeggee dina leeral nii ba xam dina dem wala du dem waxagu ci donc est-ce que priorité yi nekkul feneen ku dul nekk naan bu ko defee bu ko defee bu ko defee te moom nee na defagul waxul ni dina def wala waxul dina du def. Euh, Amina xam nga Sénégal nag dañoo toll foo xam ne ñun dañuy bëri ay gis nga am réew. yor ko du yor kër am réew yor ko du yor ay AIC am réew yor ko du yor benn association ba yor lu la neex def non non non association yi sax ak kër yi léegi am na noo koy yoree. sa propre doom bi nga jur moo naan la papa lii nii moo lay jubbanti mm-hmm. damaa jëlale réew moo xam ne ay waasoo ko bokk ak ay askan ay xeet te jàmm masa am ci ñoom donc président Macky Sall nee naa la mënul indi ay bu indee ay moo ci ëppale président Macky sàll ah moom mi ngi mi ngi mi ngi ci liggéeyam. bu demee non no bu demee ba naan ñu ay man dinaa leen wax wala duma leen wax rek problème am. parce que am réew du doxee noonu. parce que nee na moom am na ay priorité yeneen priorité mooy liggéey réew mi. yow naga ni waroon ngaa xam ndax Macky Sall day dem wala du dem. mais jotagul. non jot na non constitution dafa wax lu leer ñun constitution bi moo wax ne amul kenn ku mën a def ñaari mandat yu tegaloo. loolu ngeen Macky def na ñaari mandat yu tegaloo. léegi ngeen bëgg wax lan donc Macky Sall constitution moo ko xañ mu am beneen mandat bu forcé ba mu def ko lan moo daloon ab Wade 2012. mais Ablaye ngeen ko réglé xam nga yomb na. ñëpp dañoo xëy dem voté ji. mais loolu nag dañ fa dul àgg parce que non xam nga gis nga gis nga loolu la bëggaat moom parce que dinaa la wax benn affaire. Mhm. gis nga caaxaan yi président Macky Sall gën a bëgg a def tey ma wax leen ko parce que man mandataire parti laa woon ci élection yi mhm. doon mandaté parti nekk biir ministère de l' intérieur xam bu baax a baax électorat. Mhm. gis nga carte d'identité yi Ablaye Wade demee woon élection ñu bàyyi ko mu nekk candidat. Macky Sall gagné ko mu nangu ne moom Macky Sall gagné na ko par rapport ak candidat yi ak ak carte d'identité yi xam nga carte d'identité yi biométrique bii Macky Sall moo ko fi indi CEDEAO nga carte d'identité yi dinaa la wax benn affaire base de données bi nekkul Sénégal parce que mu ngi ci mu ci Afrique bi yëpp waaw léegi pays membre CEDEAO yëpp ñoo bokk carte d'identité bi ñu yoree Sénégal ci ban ci bañ réew ñi ñi bokk ci CEDEAO la nekk ki ki bokk ki yor base de donné bi bokkul ci CEDEAO Malawi bokkul CEDEAO donc Sénégal dañuy gis nga lu ñuy wax ba mu ne day nekk candidat day confisquer électoral bi day sàcc élection yi man loolu laa wax mm. te loolu na ko Sénégalais yépp bàyyi xel moo tax ñun dëndul àgg ak moom ci nekk candidat parce que carte d'identité yi ay carte d'identité boppam la bu forcé ba nekk carte candidat yàlla xam na ne dina indi cinquante et un pour cent wala cinquante deux pour cent te bu boobaa réew mi tàkk dong lay def bala ñoo àgg ak moom foofu nag ñun li ñu njëkk a xeex mooy candidature am mm. moom la ñuy xeex incha allahu rabbi donc candidature am ngeen di euh, xeex mu daanaka li ñu cërale woon ci waxtu euh, jeex na une dernière question rek euh, bu jamono ji moom la président Macky Sall mi ngi def ay woote di sàkku ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di opposition bi ñu ñëw mën a toog waxtaanee li nga xamante ni moom moo di jafe-jafe réew mi waaye itam daal di waxtaanee bokk ab dialogue social est-ce que njortu nga kii di seen leader Ousmane Sonko dem wuyu ji ci dialogue boobu donc xam nga suma leader moom côté boobu dama koy bàyyeek moom ndax xam nga ñoom dañu taxawal benn front bu tudd F24. Mhm. yaakaar naa ñoom ñi seq opposition bi te Sénégal ñor leen ñu ci bari dem nañ dem signé ji. Mhm. donc front boobu lu ñu décidé rek donc sama leader ànd ci man ànd naa ci li nga xam ne ànduma ci mooy. mais dialogue ba la passé dialogue ba la passé. Khalifa Sall ci ci ci front bi la bokk mais moom tànk génnee nañ communiqué comme que moom Euh, donc damay bàyyi kàddu googu question boobu ak Ousmane peut-être dina ko dina ko dina ko tontu. mais li ma ci mën a tontu mooy dialogue ba la jàll dañu ne woon jël nañ ñaari artisan pour boole leen ci dialogue bi ñaari artisan yooyu artisan yi leen délégué woon pour ñu dem bokk ci dialogue bi ay artisan wu APR la ñu tànn pour boole leen ci dialogue bi. mais artisan fois-ci nag cette fois-ci non cette fois-ci dañoo bëgg bu fekkente ne dañu ngi def seen i mbuxum. ñu bañ a tudd artisans yi ne dañoo dem wuy ji dialogue bi te tudd ne ñoom seeni nit ñoo dem wuy ji dialogue bi loolu moom dama koy wax ci dialogue bi. mais gis leneen li ci des pour parti Pastef wala Yewwi dem wuy ji loolu moom dama koy bàyyee ak euh, kilifa gu mag gi. moom am na fulla ak fayda mhm. bu gëm naa ne ne bu fekkente ne luy jariñ askan bi la yaakaar naa ne du ko gàntal mais bu fekkente ne ay pexe la moo ko lal wóolu naa président Ousmane Sonko ko nekkoon kon bu boobaa du wuy ji ko boobaa du wuy ji comme li ma la doon wax sànq sa casquette politique ak casquette li nga xamante ni moom moo di euh, jiit bi nga jiitee cercle de des des cercle des artisans des artisans donc est-ce que casquette politique bi du du du impacté parce que sànq yaa ngi wax ne dialogue bi bi passé ay ay waa APR ñoo demoon donc mu mel ni dafay politique bi bu duggee dina am lu bari lu mu yàq ci artisanat bi mooy mooy mooy mooy li ma la wax caaxaan weesuwut yow nga ne da ngaa am ay chambre consulaire maanaam sembre de métier sembre de métier boobu amaat na beneen institution bu ko supérieur muy union national sembre de métier du Sénégal yow ngay def dialogue romb fa ñooñu ñëpp ñu nga xam ne tey bu ñu doon wax dép ñoom ñooy député l' artisanat nga dem jël ay nit yoo xam ne bon bokkuñu fenn nga ne ñi ñoo représenté artisan loolu ay caaxaan la mais est-ce que du politique bi ngeen dugal ci biir artisanat bi moo waral lu ni mel tamit. non parce que àdduna lépp loo gis rek politique moo ko doxal mais politique bu baax bu sellee rek jaamu yàlla la. Mhm. waaye politique politique seen moo baaxul maanaam di politique pour nax nit di politique pour fen di politique pour lekk as ay alal yoo xam ne ay téeméeri téeméeri nit wala junniy nit ñoo ko waroon a bokk nga dem wax say fen ak say tappale ba ñu jox la ko nga lekk ko boobu politique moo xaraam mhm. mais politique boo xam ne dafa sell dajale nit ñi liggéeyal leen ci. intérêt boo xam ne ñoom ñëpp dinañ ci gis seen bopp politique boobu yàlla nangu na mm. te politique boobu la président Ousmane Sonko di woote te artisan yu conseillants yi aussi tamit loolu la ñu xam moo tax ñu dem bokk ci mouvement bi nga xam ne mooy mouvement national des artisans patriotes bi bokk Pastef fas yéene fal suñu président 2024 euh, incha allah. incha allah jaajëfal ko bu baax moom euh, Babacar Sadikh euh, Ngom. suñu lu ñu tëral leen ci waxtu euh, jeex na ma bàyyi la rek nga war a def sa dernier mot rek nga tàggatoo. waaw merci Amina maa ngi lay gërëm bu baax a baax vraiment di gërëm artisan yi nga xam ne bàyyi woon nañ seen kii yëpp di seetaan di toog di seetaan euh, émission bi donc lépp loo xam ne wax nañ ko fi rek muy nekk njariñu artisanat yàlla na ko suñu borom ful bu fekkee aussi wax ji am na ay yàqu-yàqu ñoo ngi koy jégalu di soññaat rek artisan yi surtout ñi nekk ci seen atelier yi doon ay emprunté nekk ay primo votant commission yi tëjagut nañ leen sensibiliser conscientiser leen ñu dem bindu ji balaa la deux beneen bi ci des seen carte d'identité yi waaw yokk nañ ko ba la six sax mhm. ñu denc ko fu wóor même bu jaree ja jamono yi jërul ñu koy doxantoo pour que 2024 euh, incha allahu rabbi du ñu am jafe-jafe sama carte d'identité réer wala aw ma woon carte d'identité wala bindu jiw ma woon donc loolu moom maa ngi ciy ñaax suma mbokk artisan yi di gërëm artisan patriote yi nekk ci Sénégal di wax ne commencé nañ benn liggéey boo xam ne bu kenn yokk bu kenn tàyyi ndax jaamu yàlla la hmm. jaamu yàlla président Ousmane Sonko lii mu wootee moom moo ciy perte moom xañ nañ ko ci liggéeyam yàqal nañ ko ci lu baree baree bari bari na activité yoo xam ne mënatu koo def donc kooku nag bu mu ñu gën a gore lépp loo xam ne aussi teg na ko pour que ëllëg Sénégal nekk ci jàmm secteur yëpp waxuma artisanat rek mais secteur yëpp suqaliku loolu ñun artisans yi bu ñu ci des ginnaaw nañ ko ci jàppale nañ ci ànd ak moom parce que projet la boo xam ne incha allahu rabbi waxuma la artisan wu Sénégalais yi mais artisan Afrique yëpp. yëpp dinañ ci gis seen bopp la preuve démb gis ngeen mu def lancement bu am solo ci douze projets yoo xam ne war na ko def en tant que maire ci Ziguinchor. donc kooku jàpp naa ne euh, ku la jox ndékki bu la diggee añ yaakaar naa ne nga war koo mën a nga war koo mën a gëm donc vraiment maa ngi lay gërëm ci invitation bi mm-hmm, di gërëmaat waa bureau exécutif MONAP commencé ko ci coordinateur bi Samuel aussi ak euh, ñi nga xam ne ñoo yor filière mécanique bi ak euh, ñëpp ñi nekk ci bureau exécutif bi rek Adja bi tey boroom koppar yi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di gërëm. Mm-hmm. di leen sant di leen wax jërëjëf. di nuyu aussi tamit boroom kër gi Serigne Dame Dieng. Mm-hmm. xam naa ne sama nijaay la. Mm-hmm. Euh, waaye boobu moom damay bàyyi rek ba dem bureau am incha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax euh, moom euh, Babacar Sadikh Ngom jaajëfal itam yéen mbokk téléspectateurs yi ñu doon suivre 19h ba léegi jaajëfal nañ leen ci teewlu bi ngeen ñu doon teewlu di leen jox dig daje ëllëg ci beneen invité jaajëfal itam ñi nga xamante ni ñoo ne féete woon ca diwaanu régie bi di ku ci mel ni Omar Diego Ndoye ak kii di Alioune Badara Sakho mbokk yi jaa ngeen jëf ba ëllëg incha taala